di jaajëfal ñi nga xamante ni mooy suñu lion yi démb defe naa ni bégalate nañu ndax su ma nee bégal nañu yàgg nañ ñoo bégal Boulaye Dia maa ngi koy nuyu bu baax a baax xam naa ne moom démb bégal na xol yëpp ndax defe naa ni doo fay la ñu wax bi ñu demee fee abi dafa ne dafa abi dafa sifle rek ñu yoxo suñu waaw ñoom tamit bi ñu ñëwee abi daa sifle ñu yoxo suñu man bi ma déggee bii sama dafa sedd Sadio Mané nag ñoo ngi koy jaajëfal bu baax a baax équipe bi yëpp équipe yëpp ndax defe naa ne kenn mënul def lépp ñoom ñëpp ñoo leen di jaajëfal di wax ne démb Euh, li sénégalais yi bëggoon wala ñu ci bay li ñu bëggoon am nañu ko démb ndax qualification coupe du monde defe naa ne ku nekk bëggoon na ko ak équipe bi ñu yor yaakaar nañu ni bu ñu demee foofu war na ñoo mën a def résultat tey nag maa ngi fi Bébé Sa dalal fi ñaari ndaanaan dalal fi ñaari xale yoo xamante ni nii euh, làmb da leen bàyyi xel ndax ñaari xale yoo xamante ni bu ñu ñëwee bu ñu bàkkoo mu neex bu ñu bëree mu neex ndax damaa dem ba caaro yi jëli ki nga xamante ni mooy ñaxi jariñu ñaxi jariñu vainqueur Kewel ma àndi ko fii boole ko ki nga xamante ni muy mujja ma dem ba yoof andi ko moom tamit mu nekk xale boo xamante ni ndaanaan la ñoom ñaar ñëpp mbokk yi nag ku ci nekk daan na kéwél ki daan na kéwél ki daan na kéwél def naa su ma nee ñoom ñaar ñëpp daan nañ kéwél rek ku ci nekk sa xel war naa mën a yegg fa muy dem ma bàyyi la ñu nuyoo ñu doog a wéyal waxtaan wi kalaa njëkkee ci yéen ñaar mujja nuyu naa la bismillah subhanallah alhamdulilah wala ilaha illa allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah maa ngi lay fay di euh, nuyu ñëpp ñu nga xam ne ñoo fi nekk di mm. nuyu ñëpp ñu ñuy seetaan di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal sama bopp di ko ñaanal umma islamique bi yëpp mm. di ñaan suñ borom ñu commencé si émission bi bismillahi rahmaani rahim jeexale ko si alhamdulilahi rabbil alamin waaw Yoff ñu nga fa ñu si jàmm baax baax mm. nu nga gisee nii da ngaa mel da ngaa mer de nga gisee état bi nii pour man da comme que amuloo combat sax yaa ngi nooyal di toog naraw bu yenn heure yu jóg yaa ngi entraîné fajar. non loolu mooy suñu métier si la ñuy xëy si la ñuy gont. Hmm. donc looloo tax ma fàttali leen ko mbokk yi defe naa ne moom moo ngi ci euh, douze douze victoires dix huit combats nga wax ah dix huit combats douze victoires six defet defe naa ne palmarès nag bu baax la ndax xale boo xamante ni bi mu jógee léegi yàggul bu defee yaakaar naa douze victoire nekk na palmarès boo xamante ni palmarès bu baax la balaa loolu nag ma bàyyi ki nga xamante ni mooy ñàkk jaay ñu nuyoo ñu doog a waxtaan bi yaa ngi ci ñaari combat waaw ginnaaw bu ñu sante yàlla rek julli ci yeneen bi di sant di ñaanal suñu ñaani waajur fa ñu nekk yàlla na yàlla xalaat jël ak képp képp ko fekk ak ñu fay waaj fekk ah. di nuyu nag axlu caaro gépp ah. di nuyu ñi ma fekk fii muy xam suma entraîneur parce que fu ma dem mu fekk ma xeebalu ma mm. dara fépp fu ñu ma woo day ànd ak man. Mm. fépp ci àdduna nag. waa kon nag man ngi koy sant di ko gërëm parce que taxawee na ma fépp nag. Mm-hmm. yooyu duwees ma lay béggee di la ziar. Mm-hmm. di ziar Modja champion bi nga dalal aussi. di mm-hmm. ziaral Basirou Kouyaté di ziar ñoom Modou Baye Fall xel comme automobile waaw ñoom Jean ziar ñëpp ah, di kontaan bu baax a baax. yaa ngi ci ñaata combat. waa ñàkk jariñ mi ngi si 21 combat. ñaata victoire. quinze victoires cinq défaites benn combat bu avorté. bu avorté waaw mooy maag Alioune Seye xam naa nag bokk na ci combat yi la gën a métti. waaw parce que arène nationale histoire bu fa am histoire du koy bind. Hmm. ñàkk jariñu moo décoré arène nationale moo tax arène nationale ñëpp jël ci motuwaay ba nga xam ci jël nañ ci ay mesures yoo xam ci tey làmb gën na defaru pour man. noo ko décoré. parce que li fa am loolu moo tax nag CNG bi ci la defaroo ñu am beneen CNG bu bees nest Mm-hmm. léegi làmb amatee ñu jël si barrières yi pour léegi sax mbër dugg si biir ak ay supporters am yombatul. Mm-hmm. kon man dëgg la loolu ci man la jaare wax dëgg yàlla. waaye mm-hmm. moo defar làmb. <laughs> dégg ngeen ko def caa bi <laughs> tey nag ma dalee leen fi ñoom ñaa bëgg waxtaan ak ñoom ci làmb kañ dugg si ci làmb. 2011 laa bëri sama premier combat. yaakaar. maak euh, Wuteng Keleng mooy Nees Boy Kayre. Nees booy Kayre. Nees booy Kayre waaw. nga duggu ci làmb loolu bu ma laajee kañ laa bëri ak ñi ma bëreel benn par benn mun naa sax kan laa bëree kenn kenn. kon bokkuloo ci mbay wax man xamatuma kañ laa déedéet man ñëpp ñu ma bëreel liste la ci man sama bopp. maa la wax loolu. laaj ma mais mais mais ñu ñëw gis la dugg ci làmb andi andi andi sa istilu bopp. ñax kenn du laaj fan na bokk. waaw lu tax loolu. waaw boo gisee loolu sax am na lu may def sama bëri fu mu toll boo seetloo mbëri yëpp a nga koy def. waaw slogan boobu. lan loolu tus nga lu la wala. waa nii ñu ko xëccee tus nga lu loolu wax dëgg suma benn maire bu ñu wax yaa xadi saana ko. ci hmm. moom lay jóge instant sama cumbukaay mooy def loolu xam nga. waaw depuis mbapat nag ba léegi kon yàgg na ci man. Hmm. waaw waaye maa ngi gis léegi nag xale yi bëri génération bi di xam nga mooy loolu. Hmm. même police barki démb yàggul maa ngi mu def yu mel noonu. kon ñàkk jar nañu ko bàyyi xel am na lu mu représenté si làmb. moo ñëw ci Modou Dia Modou Dia kañ nga dugg si làmb. man saison 2012 2013. 2012 2013. waaw saison boobu laa ko. Hmm, kan nga njëkk a man bébé Modou Lo laa njëkk a bëreel. bébé Modou Lo ban boo ko waaw voyagé na sax. ok mille yaakaar naa. 80 mille waaw. Euh, sa combat yi nga jot a bëree ban combat moo la ci gën a neex. non yëpp xam nga làmb moom ñun euh, avant xaalis bi avant lépp amour moo ñu si dugal. Mm-hmm. donc journée bu ñu waaj ba bëri ko ba jóg si rek ñu am si ndam ñu am si defee yëpp. palmarès la bon dañ daf ñuy neex quoi parce que bëre bëre ñun bëre la ñu xam. Mm-hmm. bu ñu toogee sax amuñu combat bëriwuñu nii dañuy mel ni ku nekkatu mais kon journée yëpp neex na ma ñëpp ñu ma bëreel neex na. mais ñu gis la euh, nga nga def ay performance ci làmb mais dañu gis combat yi nga xamante ni moom nga war a génnee yu ci bëri da koy ñàkk loolu mooy problème bi. waaw xëy naa bo damay jël loolu rek ma teg ko si dogalu suñu borom parce que metti na da ngay def sa yoon ba egsi si benn chemin. Mhm. ñi lay daan sax yaa leen di mën. comment ça. si man ma su ma gis ku ma ke benn nit moo ma daan ma nangu ne kii moo ma mën jamono ji yamuñu si laam kooku bàyyi na mooy Yékini de mais tout le reste gëm naa ne bu ma tegoon kaamil maa leen mën te loolu ñëpp xam nañ lool si laam ñëpp ñu ma daan. ñi la daan ñëpp kenn mënu ci. waxuma kenn mënu si ñëpp maa leen mën sax bokk. yaa leen mën waaw. ñu daan la. mais <laughs> làmba ni demee. am moo demee noonu. <laughs> gis ngeen mbokk yi làmba ni demee mais mais mais ñu gis sa dernière sortie bi sa diggante ak caat coow li bàyyi woon na sa diggante ak caat làmb ji nga am foo ko tegoon mais nga ñëw ku ne gis na ni nga bëree ñu ci bàyyi nag nee nañu naagu moo la ñàkkloo sa làmb parce que wet gi ngay maye li nga maye dafa ëpp maye nga ko mu yeggal fa soo yeggee nga xaw cee génn mais teewul mu bàyyi nga gën koo jox sa bopp ñu ci bàyyi ne ne naagu moo tax nga ñàkk nga làmb moom. booy déglu ñii di analyser toujours doo jóg si juum parce que ku nekk ni ka neexee rek lay analyser. Mhm. ku far mënu la mais bu ñu ñii gisee ne naagu la ñii gisee ne négligé la man li ma gis ak li ma gëm mooy dama gëm que ne li ma waroon a def laa deful moom mu def li mu war a def daan. nan nga waroon def ko. dama waroon a ñëw xañ ka sama bopp si suuf bëre ak moom comme ni mu ko bëggee woon. mais est ce que yaakaaroon ne da nga ko doole tamit. effectivement maa ko doole. yaa ëpp doole caat fuuf. mais comme daan na ma ba pare yenn nay boo koy wax dafay mel ni xajamal maa ngi koy félicité di ko ñaanal yàlla la reste si carrière am mu am ko ni mu ko bëggee daal. gis ngeen mbokk mu am ko ni mu ko bëggee dinaa ñëw sa digganteeg euh, Kewel parce que kii dinaa foofu laa jëm mais Kewel da nga ak moom ba ah, man boo joxuma woon favori mais gannaaw ba bi ngeen ci loolu dinañ ci ñëw sa diggante kéwél nga ñëw sa temps yëpp nga jël ko combat bi yàgg te ñëpp xamoon na ñàkk moom mbokki timis la dàq ko teewul day ñëw mais nga ñëw consulat ma ji. waaw premier parce que dafa am ci lu ma jóge waaw wóos damaa jóge ci sanction. lekk mhm. sama reliquat. ma mhm. dund ci lu metti àdd yëpp di ma aj la aj écrit bi. ok àdduna yëpp di ma xaar. aussi ma ñëw suma waajur bi gënoon jege si man làkku kon wóos àdduna korog li génn sama koñ musul génn sama koñ ay mag dañu ne ba ñu juddoo ci koñ bi ba léegi lii musu fi am mhm. mu doon événement bu rëy may génn gis loolu wóos kon yoon la ak ko un ay et ki may bëreel nekk mbëru dëkk tamit wax dëgg parce que Bawol mhm. dañu ko yaakaar mu nekk daanaan mhm. préparé jóge si defet ak mag maxineel moom it am lu mu indi ma xam ne kii mais bi nga koy bi nga koy jël est-ce que wàcculoo ba mu ëpp parce que nga jógee ci Alioune Seye daal ci kéwél tamit est-ce que wàcculoo ba mu mooy moytante bi ñun li li la mu jox léegi léegi ñun tey amuru làmb lañu am. tey xoola tey liggéeykat bu war a xëy liggéey amul lu mu liggéey. bàyyi na ci de. non day doy waar boo gisee beneen liggéey boo xam ne métti na da nga koy def pour sutur kon man awma leen lu dul làmb damaa bëgg làmb sama ànd nga xam ne sama waa ko sax dañ ma wax ne combat bu ñu tuddee da nga koy jël parce que da ngaa bëgg bëre tey may xaar booy di nii te man mbëru amateur la mbëru super àdduna ma bëgg kon dama war di yëngu moo tax ma wàcc jëli kéwél kéwél waxaale ma yëngu sax dama jékki sama benn waay bi ñuy wax Bachir Koyar moo dem jël avance bi indi ne ma mi ngi nii loolu gën a dee pour moom damaa bëgg bëri rek. man la avance ba nga jël waaj dem entraîné. laaj aw ma problème mu ngi ne sama entraîneur ngi xam ma sax lu ñu may fay yàlla xam sama yoon nekk ci loolu su ñëw ne muus bee bëri damay bëri ma détaillé waaw kon woo su ñëwee ci loolu moo préparé préparation bu am solo. Mm. moom tam ñu préparé ko lël ko trois mois tegal ko lépp lu mu bëgg. mu am si doole nag. am na doole na yàlla mu am si doole ju wóor. moom it di contact ay champion champion yi tam kenn mënu ko si daan ay champion ñuy dégg ci simple bi ay champion waaye xam nga rek ndeysaan ñàkk jariñu bukki timis la ba dàq si gétt bul nelaw damay ñëwaat. Mm-hmm. may ko confiance parce que moom mooy doon boo ko mayul confiance dëgg dëgg dëgg. su posé wu ba téye boobu dalay xañ boobu mun ngeen niil. te mhm. man niil arrangé wu ma. moo na ma koy may confiance mu dóor ma may bëgg a dee moom ma gën a mu jàpp ma fu ma neexoon. mais ci biir bi est-ce ba ci biir nga xaw a nga nga xaw a parce que gis nañ <sighs> sonnaloo. bi may daw digg géew bi daw naa vingt huit tours. non ngeen contacté bi ngeen jàppante moom laa lay wax. sama ah. garab yi damaa ñëw ci ma li nga daw doy na ko xaar ma. wóos man vingt kilomètres lay daw. loolu lu nekk ci man la naturel noonu laa mel. kër de lion laa xolu gaynde du ma sonn waaye nag pour ma daan ki ma bëgg ak manière ak caaro ñu mënoon xaar donc nag maa ngi jégalu supporters yi parce que am na ñoo xam ne xam nañ ñeneen lañ doon togg sax yàqu na maa ngi jégalu ci loolu waaye ndam rek laa ci bëggoon moo tax ma ko cons ko ba mu dem ba dee ma manipulé te gis nga ni ma ko daanee ku amul doole du ko daane parce que maa daw sol ko kot sama tànk jël loxo bi dugg ko si épaule bi sol ko daw téye baraab dóor ko ans muy ndéer wóor a bëree. billaahi loolu kenn <laughs> noonu la demee. <laughs> ma ñëw sa diggante kéwél. bi nga koy jël dégguloo woon ñu ci bàyyi ñu ne kéwél la waaw xam nga làmb mooy li ma la wax sànq rek. ku si nekk ak nii la neex noonu nga koy traité ku si nekk ak ni mu la neexee noonu nga koy traité ba et bi ma koy jël dafa tegle quatre grands combats. Hmm. nekk si yoonam. jàpp ay mbër. donc man su ma jógee si gàmmu gay war a confirmer si moom. xam nga nit ku nekk ni ko neex noonu la koy analyser. mooy lu la ñaxal wax làmba bi dafa bari moytunte xam nga moment bi mooy bëre ak Gamou Gueye. Mm-hmm. Euh, bu dul woon ma jógee si defet waroon naa bëre ñeneen ñu dul moom. mais bu moment boobu moom dafa def neuf combats neuf victoire bi ma xoolee xale yëpp prouvé bi mu prouvé kenn prouvé wu ko si ma jël ko bëre ak moom kon donc su may bërewaat ak kéwél mu doon confirmation. Mm-hmm. nit ñi niñ koy xelaatee loolu ñoom la engagé mais man li may indi loolu man la engagé. gis ngeen mbokk yi suñ boroom may ma ndam mais nag gannaaw moom am na ndam kii am na ndam mais ñoom ñaar nag dama leen fee woo tey parce que ñoom ñaar ku ci nekk def nga say performance ci làmb mais dafa dem ba tool foo xamante ni gannaaw ñoom seen i mag mënuñ leen may chance wala ñenn ñi da leen di bañ a jël dañ ci gis mbër day bëre ba noppi daan toog ci victoire mënul am combat. ku ci nekk naan diw daf maa ragal diw daf maa ragal kii ñemewu mais ñoom ñaar nag gannaaw kay ñemewu leen tax na ma woo leen fii bëgg waxtaan ak ñoom sànq sax am na ko ne ma da nga waroon fii double moteur woo fii caat ñu ñeent man leen pourtant pourquoi pas loolu tournant bu du ko dàq sa diggante ak euh, ñaq ñu ci bari nag nee nañ combat ko dàq parce que gis nañ ci kaw ak bi nga wàccee stade euh, njaaytin njaaytin la doon dëkk di la sonal mais nga ne ma du maak moom mais sa diggante ak ñaq jaw ñu loo ci wax waaw sama diggante ak ñax jariñu làmb comme yeneen làmba yi mais ñax jariñu en ce moment mu ngi si sommet bu baax am na ñeneen ñi mu mën a bëri si victoire la jógee man si défaite laa jóge man aussi mu am combat bu gën moo jë mu am si ndam. da nga ko ragal waaw. <laughs> fan nga teg na mën wala da ëpp doole. maa la gën a xam sama bopp moo ñàkk booy bi dafa mel ni ñëwul la de. non du loolu sax dafa xam làmb ni muy demee rek xam nga tey. moom wax na ko léegi non mais moom li mu wax. waaw li mu wax da lay ñaanal rek bu la ñaanalee pare na ko amin waaw xam nga ko jërëjëf déggoo li ma la man maa ñoo moom ñooy ñuy communiquer parce que xam yow non yow mu leen communication. parce que kii kii ni muy communiquer man xam naa bu baax. yow ni ngay xam naa lu baax. man xam naa ne mosoo ragal. am na ñoo xam ne bu ñu fi nekkoon tey. waaw parce que ni ma lay wax nii promoteur mi ngi koy woo. micro bi ngi koy woo ci ay pour yeneen mbër man promoteur mi ngi may woo ci yeneen. mos nañ laa woo ci combat sa diggante ak moom. wallaahi mais sa diggante ak moo jox lamb du ko daax. non du moment bi ñu tool parce que comme ni mu la wax dafa am loo xam ci moo nekk ci kanamam man daa am lu nekk sama kanam maa ngi toll ci 21 combats fii du sama place yàlla xam na loolu. mais mais nga defee ne boo jëloon Modja boo ci amee ndam mënu laa yóbbu fenn fii waaw Modja champion la déggoo li ma la dafa dugg ci kalaaf toj ko ma dugg ci kalaaf toj ko kon ay champion lañ waaye moment bi moom soxla na lu gën ñàkk jariñ ñàkk jariñ soxla na tamit lu gën Modja dëgg di dëgg parce que tax daa am fu ma teg sànq dama fay dégg nga ne am na ci am yoo xamante ni nii doo sax seen morom mais dañ leen di jéggil di leen tëbal di leen kii est ce tamit bu ngeen bëri woon fi mu kenn mënu laa jël tëbal la gannaaw ñeenti. boo yi am promoteur ñaata combat yoo ko pour pour te dire. waaw Moussa Balla Gaye ko yàlla xaraa jël na ko yàlla mais boobu da nga jóge ci ay defet moo da nga jël ko. waaw benn defet laa jóge. waaw li ma la dama wàcc jëli ko. booy bool dama wàcc jëli dafa bëri Moussa Balla Gaye booy bool dama wàcc jëli ko kan ak euh, kii bi paase euh, waaye kéwél. kéwél dafa bëri. dafa bëri sama combat yëpp damaa wàcc géli. mais dama gis kii day bëgg combat yu neex combat yu metti non gis ne waaw moo tax naa ne yéen ñaar làmb du ko. ndaanaan la moom du nëbb boppam ni muy communiquer noonu lay bëree. waaye man tamit ni may communiquer noonu laay bëree waaye. waaw looloo tax nag ma woo leen. waaw bu mu leen fa wooyee ngeen ñëw di raayante kii di tàgg ma moom. di wax kii moom yooyu yëpp baax na. du tàgg de dafa xam dama xam li nekk ci moom ak ay qualité ak ki mu doon moom mu xam ki ma doon samay qualité waaye suñu ma proposé yoo xam nga suñu ma proposé dama la wax moo jàpp proposé nañ ma ko. mais bëgg nga bëgg ak moom. non si kanam lii combat si kanam. xam nga lan nga comprendre ñun. Mhm. xam nga jan jamono lañ fekkee si préliminaire. da ngay ñëw ba stade ñu ne la kii ngay bëreel. waaw ah man boobu bëri naa loolu. lu bari ak Serigne Modou Niang ay mhm. combat yu bari yoo xam ne da ñëw ba stade ñu ne diw mii ngay bëreel. Mhm. loolu jamono ju metti ji lay ute naa jamono ji nga xam ne léegi booy da leen di au CNG seen moroom ñëw ñu taxaw naan kii laay bëreel ak kële laay bëreel. wala nga woo ñu ne xaaral ma woote dëkk ba moom ñun amuñu ñun fekkewuñu fi lool kon donc looloo tax ñu bari ay komba bari ñoo xam ne itam noonu la ñuy def. bari ñoo xam ne tamit dañ daan te waruñu ñoo daan. Mhm. kon donc dafa am lu nga xamante ne. Mhm. c'est en ce moment ñu relever la défi xoolaat yoon bi ñuy jaar. Mhm. dootuma pasar pasaree suma làmb lu leer fu leer laa koy teg. léegi nag wax na la bi maa bëreeg ma naan ñuy ñëw. ñu bi muy bëree yoof ak booy say deux suma juumul koy dóor mooy. éppeeku Malal Ndiaye numéro 2. jour boobu ñu ngi ñëw si làmba bi mais na làmb mooy doxe noonu. am na ñu nga xam ne. moom ak man ñoo leen njëkk a bëri mhm. te pourtant ñu ngi fayee ay cachet yoo xam ne ñun fayee ñu ko mhm. léegi problème boobu mooy problème ci loolu c'est parce que léegi làmba ji faw nga am kumba am nday laa kumba amul nday faw nga am promoteur ñun amuñu ay promoteur dañuy débrouiller suñu bopp suñu njàmbaar moo gis nga tey mhm. ñax ko xoola day daan ñaata combat ñaata victoire la jóge xoolal ki mu bëreel am na ñoo xam ne bu amoon ñaari victoire yu xaw a baax Mhm. léegi nga dégg leen si kaw. mais ñun amuñu loolu donc. man mais nag mais nag raison pour laquelle bu ngeen amul loolu est-ce que du ngeen bëri yéen seen biir ñenn ñi génn ñenn ñi. day am lu nga xamante ne. Euh, xam nga sànq am na ay mbër yu ñuy wax fii nga naan euh, déggatuñ leen ñu ngi États-Unis boo leen ooyee duñ bëre. mais nga dem toog foofu noonu liggéey foofu sa live day gën nga yàq sa palla. liggéey ba sonn ñëw ba fii. yow maanaam li ma su ma déggee lii soo ko nawee def. soo ko naree def mais effectivement am na ñoo xam ne su ma naree yaa ngi koy wax fii namaan ay eh, am na ñoo xam ne ñu ngi lay tëkka ñu nga naa mais su ma naree tournée di bëre ak ñoom ma bàyyi li ma fi jot a def su ma ay doom bu ñu màggee tey ñu leen seen papa lii la fi def. mais muy ëlbatiku waat di bëriwaat mel ni non lool parce que gis nga tey làmb xam nga la moo ko yàq intérêt personnel bi promoteur day xëccu intérêt mbër mi intérêt ah CNG intérêt manager intérêt supporter intre amateur léegi kuy xëccu intérêt làmb si amul kenn voilà kon donc nañ xool lii doxal làmb ñu def loolu mais léegi nag ñun ñi nga xamante ñoo nekk ci làmb ñoo war a xool li nga xamante ne mooy doxal làmb ñu fexe cee nekk non man léegi léegi léegi yéen yéen rek léegi yéen yéen yéen communicateurs yi xam a tuddee Sidi bokk ngeen si ñi gën a yàq làmb waaw loolu am na très bien parce que xam nga lan moo tax mhm. da ngay gis ko am ñaari combat mhm. mais nga dem fekk ka këram jël ka mu toog wax lu ko neex ah, ngeen génn nga teg parce que lan seen intérêt yéen aussi ngeen di dox <laughs> loolu moo tax am si làmb mhm. donc dag léegi ku si ne yaay am sa fulli bopp xam li ngay def yéen seen ay vie moo leen intéressé mhm. ak yeneen yi ngeen am si suuf <laughs> man aussi li ma intéressé moo intéressé ñax moo intéressé coach nga keneen ak keneen ak keneen gannaaw gannaaw kii moo moom ma fi nekk di ma jéem a waar di ma jéem a kii léegi yow yow ñan nga bëgg a bëgg ci man moo ja moom moo ja non man moo jëm moo jëm moo jëm. non wax na dëgg de. non déedéet ba bu bul dëggal li wax man. maa wax ak yow. waaw xam nga tax ma lay dëggal Ousseyn xam nga tax ma lay dëggal. waaw Ousseyn ñaata li ma yoon bi ma yàgg nii di may sens. mais nag mais nag mais nag est-ce que nekkul ñàkk staff. parce que tamit parce xoolee am na fi boo yu baax. xaw ma ah, ñu nekk sa ginnaaw. déedéet staff wutalul kenn combat de non mais ñoo nangu combat yi ñoo la ñuy waxtaanal déedéet bu baax xam mooy la bu ma la woon di la propose moo jox di nga ne ma bàyyil ma woo Aline Fall bàyyil ma woo Ali bàyyil ma bu baax mhm. mooy xam li arrangé mbërëm mu koy daf mooy fexe mbërëm kenn du ko fàtti làmb fexe mbërëm saa bu ñëwee ñëpp kontaan fexe mbërëm di daan mais damaa gis ay booyam te yaa ngi jiitu ci làmb mais fi mu toll ñu fayee ko ak mbër yi mën a bëreel bëreewoo ak ñoo tàppee woon YouTube kan ngay gën a xam ñàkk jëriñ international la lu ma may loolu tey bërëm përie foo dem da koy dégg laa lay wax damaa liggéey ci làmb dëgg la làmb fayagu ma. mais nag kii moom damaa bëgg nga bëree ak moom. waaw loolu nga bëgg yow. waaye amateur yi ñu ci bëri parce que man xam nga du ma tëb tëb rek woo leen. léegi def nga émission. waaw doo dégg benn amateur bu la ñàkk bu jariñu moo ja. yàlla xam na di nga dégg ñu ne combat bu neex la te suñ génnee fii. waaw du yàgg dina la diw taxaw na. man dinaa la wax sama combat diw taxaw te ñun ñaa ñu ku si nekk combat yi baax nga am man maa la loolu. parce que ñun ñaa taf yëpp am na lu ñu dee a bégal nit ñi rek waaye du ñu yi ñuy woo chaque jour démb ci xam na li may wax waaye soo gisee ma ñëw mooy li ma la rek mun ta ñàkk parce que li ngay gis nii pour ma feeñ ci média sax yombatul jamono yi. Mm. parce que lépp maa ngi dëkkuñ parce que li tax mooy laa jamono mbëru dëkk la àddunaa ma topp sama koñ ay 100 saa fa nekk yoo xam ci maay seen giit kon Ouzin su may dugg ci damay dugg ci lu leer. Mm. li ma ñàkkoon deux mil 2013 amaat ko 2021 su ma ko ñàkkaatee du baax te li topp sama ginnaaw si man la ñuy xool kon nag sama bakkan bii laaj teg. man nag dama leen fi woo bëggoon lu neex mais gannaaw yéen ngi raay raayante ak ku ci nekk naan kii champion daanaan bu dul ñàkk kan nga mën a bëri fi mu toll nii. non bari na parce que am na benn mbër fi toog nee na yaa gën a nooy ci mbër yi. yaa gën a neex a daal <laughs> yaa gën a neex a jëflanteel ci mbër yi. loolu xam naa ne dégg nga ko de. am na léegi laa koy door a dégg fii am na ay mbër yoo xam ne fii si wasaare. donc seetaat léegi si seen télé bi laa ko. waaw kon baax na am na ay mbër yoo xam ne wax dëgg neex suñu borom. Mhm. du ma leen seetaan duma seetaan seen interview ndax lan. parce que xam nga lan moo tax ay mbër yu ndaw yi la quoi. question de mbër yu ndaw. parce que non moom doo leen seetaan ndax amul. non sekk sama ak ay moroom. non comme booy yu toll nii. je me disais pas euh, attends euh, double moteur ma seetaan ay du ma seetaan ay du ma seetaan ay interview am. moo tax. mbër la bu nga xam ne yëg na boppam ñi ko wër duñ ko wax dëgg. Oh, mais est-ce amul doole moo tax mu yëg boppam. bu kon loolu moom la engagé yow am doole joo xamante ne quatre-vingt-dix minutes yaa arrière ba cinq avertissement ñu xañ la. loolu ban combat la. bu mujj bi mu bëre. moo coince. double moteur attends man laajuma double moteur défié wu ma la double moteur ñi ma bëre bëre ak ñoom. ñi ma daan daanoo ñi ma daan daanoo leen. Mhm. man dama daan ay xale dama daan pambaay daan kéwal daan ñaxa jariñu daan paptin daan ay kamas yu ñu non dama juum waaw da nga juum daan ko kéwal laa bëgg a wax gàmmu <laughs> gay daan daan euh, gàmmu gay daan hmm. kéwal daan daan paptin daan ay kamas yu ay xale lañ tëb leen mais ñi nga daan gisatuñ si kenn yow seen koñ moo amoon équipe bu newetaan bu mag équipe bi doxatul bàyyi na mu ngi sàmpi naa xam nga gars yi toppa nga am ay mbokk promoteur ñu lay tëgg mais yow amoo raison toog caat am na soit bu ko neexee ñu ne ka double moteur ak Modja. Mm. mais mu choisir Modja am na si droit. Mm. mais bu ko teg si ay yaa gën a nooy ay yaa gën naa man soxlaawu maa bëreeg yow. double moteur soxlaawu maa bëreeg yow defiyeewu ma la itam. ndax du ma sa moroom si làmb ba di la defee lenn nag dama la koy nangul xëy na man nga am chance fayee ko ay cachet nangul naa la ko xëy na am nga chance di indi popularité nangul naa la ko mais wóor na ma wóor suñu borom ne man bu ma wecce si làmb sax maa la dàq bëri yamuñu bokkuñu dara ay benn qualité si làmb. bokku leen qualité. duuna dër mbëru benn kale. yaa ngi ko loolu du la ci tontu waaye. non moo dàq bëre. waxuma la moom. fi mu juddoo sax maa fa dàq bëri. moom rëbës rëbës ga mu nekk. duul fi mu juddoo laa la wax maa fa daa xabaree. ku daa xeex yaa moom. waaw Double Moteur amul dara si Double Moteur déggoo li ma la wax xam nga lan la am si làmb. mbooloo ak ay ay lijjantikat yu baax ay businessman. mais pourtant nag Double Moteur nga bëri daal moo ko yegg moo ko andi fi mu yegg. tuddal ma ñi mu daan. non bàyyi na <laughs> mais boo tey jii manière ñàkk tuddal ma ñi mu daan nga ne barka Demba Ndiaye la daan kéwal. tuddal ma ñi Double Moteur daan. daan na fëgal. làmb yoo xam ne dañ naan ay 4 def nga 4 appels defoo 4 appels difficilement. si fëgal moo xamante ne fin de carrière la nekkoon nangul naa ko ko tuddal keneen. non ba c'est fini jeex na daanu fi kenn du carrière du ma daanatul mbër muy bëree kan la. mais est xam nga ne est-ce xam nga ne jàpp ne moo la mën ndax fu muy toppee ñax caat di ko sonal. te caat jël la daan la. non non moo tax mu ne ko. di ma daw moo tax nga dem wuti moo ja. non du question jàpp moom moo ma mën non du question ba xam nga question da lan la. caat moo daan moot ja. waaw bu bëree ak caat moo ëpp avantage mu bëree ak moot ja. loolu kese la mais nit da ngay wax wax bu rafet. sa moromu mbër looy taxaw naa kaan ay yaa gën a nooy yaa gën a dul ma dëgg la pour man daan nañ ma man. Mhm. barke Abdul Xaadir Jilaani ma tëdd wakaam mu ñëw seet ma moom nekk mbër. ànd ak nit ne ma dafa am ngénte lu mu jóge woon laajte ñu ne fii laa nekk mu ñëw seet ma kon am na yu moom. te bi ma seetsee. si ëllëg sa la dem si émission bu Baye la Mbuub doon def. laaj ma fa. li lay war ne mbëri ay yéefar lañ laaj ma fa. ñu oo ma téléphone direct ma nekka du ma nax yow. mais boobu est-ce que nekkul loo doon xool di la pee. kon ki nga xam ne yaa ngi koy testé di seet di nangam nangam looy taxawee nangaan nangaan wax nangaan wax bëgguma bëre ak moom bu ma promoteur oo di ma wax waxi double moteur bëreew ma ak moom mais na xam ne. bu fekkee dama nooy laam mu suñu kanam. mais nag Double mel ni wax bi mu wax am na fu mu la toll de. effectivement neexuma yow chaque jour nga ñëw yoof chaque jour ngay dugg yow Double Moteur fi mu ñëw yoof ak suñu sama kër gi ma juddoo comme fii ak fii ñaqatoog mais nga ne man ngay tooñ yow yow est-ce que imagine li nga wax parce que da ngay wax lu la neex yow bu ma la fekkee Iba sax du la mën naa faa ba na may daam sàkkantuma nga may tooñ mais waruma tooñ. sequma moom loolu non mais attends su ma ko waxoon daxa nooy wala daxa ñaaw gi ñaaw gi mu ñaaw su ma a waxoon du ko neex ah duul moteur jantal la bàyyi li nga def waaw duul la waaye yow yow jabaram laa yërëm <laughs> jabaram laa yërëm <laughs> naa netta dafa guddi tiit <laughs> oh, mais bul ma dama tooñ parce que li ma wax neexu ma. gis ngeen mbokk yi nii lay demee ci jàmbaaloo gis ngeen Modja fi mu toll nii moom tey moom moo ngi tontu xanaa ñi doon wax naa Modja dafa timide moom wax na xanaa li bëgg wax mais yow fi mu toll nii gannaaw yow Modja daw na la. puus na la non defal ndànk rek Modja daw na la puus na la. ma andi la man Ali moom xam naa ko génnee kii kon euh, Aline moom xam naa ko génnee dina rus ndax ñàkk mi mu xamoon ak ñàkk mi mu yóbbu du ñàkk bi mu gis tey. bu dul bu dul bu dul moo ja bu dul moo ja ci làmb ñan nga mën a bëri parce que xam naa da nga fi limal ñoo xamante ni duñ la jël man loolu rek moo ma ci metti te xam naa li boo ne woon tey pare naa promoteur boo génne mën na la ñaata ñaata bu nekk ci kanam ban lay corne. bi nekk ci bi nekk ci ginnaaw. kenn ko corne de oto nekk ci kanam di bi ci ginnaaw naan ko piip. Modja ci ginnaaw la nekk. déedéet yaa ko wax déedéet man dama ne oto bi. da am loo wax da nga ni. déedéet man dama ne la gannaaw da nga am loo wax nga ne ma oto bi nekk ci kanam bi ci bi ci bi nekk ci kanam moom. ci alim bi nga wax moom da nga ne boo bi dina daal sa kaw. man la oto bi nekk ci kanam du corne bi ci ginnaaw c'est-à-dire li ma mel nii jamono jii nii alim moo ko def ci man. non mais man kii laa wax man wax ma alim. alim moom li mu kii wóos man waaw léegi limal ma léegi limal ma ñan nga war a bëri man xam naa dama fi lim ñoo xam te duñ la jël. xam nga léegi ku ma bëgg. déedéet Malick Niang laa bëgg. Forza dama leex de. tey nag bu fekkee yoof nga dëkk yow bu fekkee yoof nga dëkk tey laa ji xam nga continuer ba nga pare. Malick Niang Forza. li ma bëgg laa la wax de. waaw Malick Niang Forza Yékini Junior. ñaa bàyyi tudd Yékini Junior Yékini Junior daanaka bàyyi na parce que ku dem États-Unis toog fa juróomi at. xam nga man de ñëw bàyyi na moo gaaw a mboosa ñooyam. dama lay wax benn secret. waaw loolu laa bëgg. waaye mhm. tey buñ ma seetee ak ñenn ñoo xam ne maanaam war naa bëri ak ñoom damay bëri ñoom parce que li ma wax sànq wax naa ci biir wax man laa fi nekkal man damay dundal làmb man du ma rey làmb tey ma seet si woon ak combat boo xam ne àdduna ngi koy coow du yàqoo si man parce que am na ful la jooju waaye soo dégg ma la dama ne ñooñu laa pëgg. caat ak waaw ba tey ñu ngi si raa ah. bi wax dëgg yàlla bi génnuñu si bi waaw parce que bu ma benn promoteur woo ma pour ñooñ dama lay nax ñu ngi lay woo di la contact. pour ñooñu waaw pépp samay morom ci ñooñ ñu may woo. waaye li ma la wax rek ku ñëw ci Aline Fall boo leen déggoo lu yàqoo si man parce que man amoo problème man bëre rek man ñàkk bëree rek laa am mi ngi mel dañ may rendil ginaar toggal ma ko jël fu set daggal ma ko li ma am sax man entraînement la am kenn sama ceene ni ñoom Basiir ak Fall ñoo yor loolu sama yoon nekkul ci loolu yàlla xam na loolu. gis ngeen mbokk yi sama yoon nekkul ci loolu tey nag moom ñoo fi am defe naa ne ay eh, waatekat lañ. waar nañ ma ba fi mu toll nii man waaru naa ma leen di bàyyi rek xanaa ñu ñu ñu ñu ñu ñu tàggatoo boo amoon kàddu yu mujj lan lay doon. maa ngi nuyu borom daaru maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax moom day jàpp ci samay affaire bu baax. <laughs> waaw damay remercier ñëpp. Euh, dëkk bi mu dëkk kii loo ci wax. Malick Niang waaw. am na si droit Malick Niang mbër la comme moom. am na si plein droit. Malick Niang nag moo am choix de vie am. ñi muy. Malick Niang moo ah, si Malick maa ngi remercier ñëpp ñu nga xamante ni bon ñoo ngi ñuy seetaan de sama ñaari rakk yi ma àndal muy Seck ak Moustapha ak waa Touba Pouno sama gaay ak euh, waa Kër Meen Juuf fa yëpp ak ñëpp ñu nga xam ne ñoo ngi ñuy bàyyi xel di siyaare sama sama sëriñ Cheikh Mohamed Rafael wulu Cheikh Abdourahmane bu ak waa Njaasaan gi yëpp di ko dagge ndànk gu yett sanc buuna ba ndeer ak waa tund Morolan tund jandeer njar mburin njar Tijaan waa Ngor waa Wakaam waa Yoof ñi nga xam ne ñoom laa am su ma amee ndam ñoom ñoo am ndam su ma ñàkkee ñoom ñoo ñàkk di si béggee sama gaa yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp bu ma limee dinaa juum mais bon ñëpp daal aw ma ñi nga xam ne ñu ngi sonn si man maa ngi am contentement bu baax si ñoom di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal sama bopp di ko ñaanal àdduna bi yëpp. wax nga ba pare li ma fi adversaire yi de Double Moteur nga tontu. non Double Moteur li ma waxoon na xari moo tax ma tontu ko. mais a adversaire ta wax naa la ne la wu ma bu promoteur ñëw di ma wax waxi Double Moteur bëriwu ma ak moom. xam naa ne itam bu may tontu dana maa soxlaaw ma la waaye man it soxlaaw ma la. mais yéen ñaar di ngeen bëre nag. làmb du ko dàq di ngeen bëri yéen ñëpp yéen ñëpp benn duñu ay mbër ñooñu duñu ay mbër gi nga làmb day nekk si yow nga koy dund duul ma man ña ma deful da xëy entraînement masula dox si la mbapati ndakaaru yi sax ba seen fa ku tudda duubul ma tën man masuma kaa gis <laughs> amul yow yow yow bëriwul dara ñu lay aj ajal di la jal jalee nga yaakaar ne duubul ma tën kaw bi fi toogee nee bi caat daan contact danaa ñëw toog di ko seetaan kooku bu ñuy wax dafa war a noppi. non mais nag am jomom ak mën a bëree ma ko. waaw làmba du maas dabante la. lamba moom lamba moom bu ko teg si ay. ay maa la njëkk a bëree maa la jiitu déedéet sens daf si am ak wërsëg. nit mën nga ko njëkk a bëree foofu man daal ñu may wax ay combat ah. mais bu si sotti rek alhamdulilah. di di di di ziare Bachir. nit la ko nga xamante ne sama ay combat sax doo koy waxaale sans sama accord kon kooku am na fu mu toll si man. Basir fu mu dëkk. Basir fenn dëkk te billaay xaw ma këram xamul sama kër yi. yow ko nga doon wax sànq. waaw. <laughs> mais loolu yàlla moo koy def. <laughs> léegi yéen lu ngeen lu parce que defe naa ne bu fekkee combat bi amul defe naa ne loxoom moo ngi ci biir. ah man c'est ça bu leen di tamit na leen jàppale yéen ñaar ñëpp dem toog ci kaw. yi ci micro bu leen jàppale na jàppale yéen ñaar ñëpp dem toog ci kaw seetaan non mais xam nga am làmb moom lay nekk xam nga làmb dafa am foo xamante ne daf fay toll fu nga xamante ne gis nga nit ah àdduna dara jaru fi dara. Hmm. mën nañoo bëri suba. mais mën nañoo dund itam ba dee suñu carrière làmb du. Basi bi yaa ko yàq. yaa woo non Basi yow Basi mooy ñun amuñu ñu péréteel de. ñun Basi dëkkuñu ak moom. waaw mais moo yàq sama combat ndax xam naa ne xam naa ne ñaar ñëpp yëpp na leen. non man Basi liñ dund maanaam tey jii. papam Diop yàlla na ko yàlla yiram paam dafa génn àdduna man ma dem ba ci gaal leen dem ba ci kon am na lu ma dund ak mu kon am na fu ma ko teg. Hmm. waaye comme li mu la wax dafa am nit yoo xam ci dara mënul man noonu laay dundee de man dara mënu ma freñeente wala mu yàqal ma ak doomu aadama bi. li ma la wax du man xam naa sa communication xam naa communication. kii moo dugg ci biir communication bi. damaa tàng man waaw waaw waaw waaw bàyyil bu ñëw. continuel continuel continuel fi nga yeggoon bu pare ma jox ko. waaw Bachir dafa doon koo xamante ne dafay sonn si ñun. Hmm. sonn si ñun bi du financièrement du dara mais nit ki ki la naan defal lii jaaral fii nga jaar fa gis si sa ndam sa nit la. Mm. loolu moo ma boole ak moom te wallaay xamuma këram xamul sama kër moom moo ma ñëwal bi may jël soxna donc man amuma fayam daal mais li nga xam ne séq naa ko ak moom ba mu waral lii non vraiment rek man am naa si loo xam ne contentement la quoi si man ak moom ku ma ko. kontaan kàddu yu mujj lan la. <coughs> waaw di santaat yàlla rek. waaw di gërëm caaro yi gépp ak lu caaro yi gépp nag cent pour cent caaro yi sam bi yëmbal bi xam nga mm-hmm. waaw maa ngi leen ziar xam nga di leen jàmm di leen félicité tamit si ndam yi ñu jógee parce que am nañ ndam am solo waaw léegi nag xam nga di kontaan ci Aline Fall bi ma àndal sama lépp ah. di ko béggee di kontaan si moom baax di sant mafia CFA bi aussi dawal ko sareet yi dawal ko kalandoo yi xam waa mbaar gi xam nga aussi di ñaanal waa crossmater Diallo ko fa nekk Jean sama waaju baax la maa si caaroon aw ma seen fay. Hmm. waaw di ñaan nag ci koor gi ñu jëm yàlla na ci dugg si bisimilah rahmaani rahiim. maa ngi tudd lu métti alhamdulilah rabbil alamin. maa ngi tudd lu <laughs> doon loo xam si mënut a ñàkk. Hmm. waaw xam nga bu mois onze mois mois bi xam nga mu doon loo xam si suñu borom weeru ngëneel la. mais gaawul. koo daa ak ren gaawul. waaw bis yi noonu la gaa àddunaa toll foofu. am na foo xam boo fa tollee loo dundaat bénéfice la. kon daf lu baax daf lu rafet dafa am solo. waaye nag maa ngi kontaan di kontaan nag si équipe nationale bi ah. Mhm. di sant di waaw di félicité euh, sénégalais yi ak sénégalais yëpp. di leen wax kontaan nañ nag coupe bi lañ soxla te yàlla na ko yàlla indi kontaan nañ ci axlu caare gépp di kontaan ci axlu caare gépp di wax yàlla na leen yàlla fay man gis naa seen taxawaay ci man. Alioune Fall moom seetaanu ma ma ma ñàkk bëree ci yëpp wax dëgg yàlla moo xam ne man xam naa amul leen lu may jooy jooyu ma benn ministre wala benn président wax dëgg yàlla. Coumba Ndoffène nag maa ngi koy sant moom di ko gërëm bu baax a baax di ko ñaanal jàmm di ko wax fàttewu ma parce que daa am loo xam ne dund nañ ak lu munti xew ci àdduna maa ci ginnaaw jërëjëf Basir Koyaate am ma sa fay moom moo production muy Modou Baye Fall ñu ngi lay ñaanal jàmm ci li nga jublu mm-hmm. dugg ci ak bisimilahi rahmaan génn ci alhamdulilahi rabaan te lépp li nga tëgg yàlla na doon réussir total yàlla na yàlla defal jàmm baara Argentina waa Njaay yëpp bëggee naa ok jërëjëf. gis ngeen mbokk yi noonu la demee ci Jamarloo Maxa maa ngi koy nuyu bu baax a baax moom sama waay la day jàpp ci lu bari ci man ak Bécaye Bécaye sama booy bi maa ngi koy nuyu moom tamit defe naa ne defe naan ma euh, da ngay nuyu ñëpp doo ma nuyu ndax man maa la yaaral say xar doo wax sax Bécaye maa ngi koy nuyu moom may kontaan samay xaar xanaa tey moom <laughs> doo wax dara di nga kontaan ci man du yow kii euh, caat kontaan naa ci yow. Modja Modja maa la gën a kontaan Thiat Modja kontaan naa ci bu baax a baax. maa la gën a kontaan dama fàtte woon mais le ministre maire Abdoulaye Diouf Sarr. Mhm. maa ngi koy remercier sama combat bi passé jàpp na si bu baax a baax a baax a baax mhm. ñu ngi kay wax na itam ñu ngi si ginnaawam ba tey ba ëllëg incha allah. Mhm. ñax kontaan ci yow waaw di kontaanaat rek di ñaanal tamit Guèye. le 27 bii la am un an si suuf sama gars la woon maa ngi koy. xam nga jaale waa biidi bi yëpp ak waa xam nga mu baar ak famille bi maa ngi koy jaale waa daas ñoom daas sama gaa yëpp daal. parce que moom it bokkoon na si samay mbir moo ko sàng ndeysaan yàlla na leen yàlla xaraa jënte yërëm leen sama xel da si soog ñëw léegi léegi léegi dañoo jouer sama carrière parce que bokkoon nañ ci man. sang bu paase doo ko nuyu. waaw sang waaw sama moniteur oh oh, oh. <laughs> sang waaw kontaan kon bu baax a baax ak Ibba. Iba maa ngi bég bu baax a baax sang moom gis nga ko. Hmm. sama koñ la dëkkoon jóge fa nekk parcelle waaye sama combat paase jël na motuwaayam ci lépp. saal bi moo ko fay moniteur bi moo ko fay appartement bi moo doon dem moo ko fay kon yàlla na ko yàlla defal jàmm moom it yaayam jooj ñu ngi koy jaale di ko ñaanal yàlla na ko yàlla xaraa jën aussi. Hmm. noonu lay demee ñoo leen jox dig daje beneen yoon jàmmaarloo ak yeneen mbër jaa ngeen jëf.